ban gis-gis lañuy jot jaar ci mbëkk mi am ci jamono ji nga xamante ni mu ngi lor ñu bari li ni mel nekk ab laaj bi nga xamante ni ñii ñu fekk foofee ca bar ñi sawar nañu lool di ci àddu te ba ñuy dem ah, ba dem moom wax dëgg yàlla moom ay jafe-jafe moo taxoon ñu dem waaw que da ngay liggéey ba sonal loolu liggéey doo xam fu mu jëm da nga koy lekkat doo denc waaw demi bu ñuy dem boo tamit yooyu dafa amoon jafe-jafe dafa amoon jafe-jafe Ousseyni Sène moom itamit bàyyee ko foofee ca bile bërëb moo ngi ñëwaat rek li nga xamante ni mën na waral fréquence bile phénomène immigration bi dafay phénomène boo xamante ne instant c'est trop fréquent parce que tey jii mën nañ doon mën nañ wax ne à loo te mën nañ ko nangu d'une part et d'autre part mën nañ ko bañ a parce que tey boo comme baax ñi fii nii say ku nekk xam ne liggéey bi bi fi ñëpp tàmm ak bi fi ñëpp xam mooy wàllum napp te ku nekk xam ne ni instant yi géej gi dafa yaaxu muy ci bari ñi ak ñi xam te dañoo nekk ci petite code bi yëpp ndax euh, gisatuñ jën boo xamante ne war nañ ko war a mën a jàpp ba gisi seen bopp donc buñ ñu demee ba gisatuñ ci loolu si gisatuñ seen bopp c'est fort probable ñu ut beneen méthode boo xamante ne bu ñu ko defee dañ ci gis seen bopp moo waral tey immigration bi ni mu doonee loo xamante ne fréquent na instant bi ndax ku dem moom ba gisatoo loo xam da ngay wuti ji leneen loolu moo tax mu doon phénomène boo xamante ne instant c'est trop fréquent te ñu nangu ko d'une part aussi. ndaw yi jël ko lool donte sax am na ay risques muy sànq ñi bëri ba jaay yi bu démb bi moo ci mujj waaye ñoom ñi fa bàyyeekoo ñu ngi xamle ni rek. fekk boobu li gaal départul foofee ca Bargny. mais information doon na ne nii doon na loo xamante ne dëgg la ni ma la ko waxee ndax ñun moom départ wuñ fii moom ci li ma xam. gis nañ ni itamit lu njiic njaaj état du Sénégal mooy njaaj ndax politique intérieure bu méngowul ak suñu réalité dëkk. li ko waral yaa beaucoup choses majeures yoo xam ne moo ko waral mooy géej gi gis ngeen que ni mu mel nii ndox rek la da nga taxaw fii gis jën mais tey mënoo taxaw fii gis jën moo dem biir géej gis jën. suñuy gaal daan jóge fi dem ba Kafountine ba Tànj ba euh, euh, frontière di wut jën ñu am jën di dem ba Yoff Kayaar ñu am jën géej gi mu amatul jën ginnaaw amatul jën nag gaal yi fi mu ne nii fi mu ne ay gaal yoo xam ne ani at ñu ngi seer yenn ñu ngi si kaw gis ngeen gaal yi si kaw yëpp yu daan dem géej la tey jii amuñu fu ñu seet boo la koy jaay essence deux cent mille trois cent mille par jour xam nga dafa dafa métti huit cent mille donc boo nee dem tëmbal te essence ñëw du am jën nga seet toog lu ubbi nag muy immigration clandestine xale yi nga xam ne ñoo fi nekk dem si borom gaal yi sax ku yóbbu Sénégal fi ne nii donc c'est un phénomène majeur mais li ko waral nga ne lan moo ko waral mooy géej gi dañu wax ne dañuy jaay géej. waa Sénégal dañu am ay convention nationale et internationale yoo xamante ni dañ ko war a diminuer mbaa ñu arrêté ko pour nit ñi mën a dundaat retenir affaire bi mu dellu siwaat parce que dañ am loo xam ne bu amee da ngay toog am un laps de temps nga bàyyi loolu do mu mel ni dañ ne reproduction reproduction kan lañ koy wax jën bu ndaw bi nga xam dañ ko war a bàyyi mu màgg léegi nag boo bu fekkee da nga mu màgg ñeneen ñëw tibb ko yóbbu nan ngay def sàkk pexe ñu ñàkk pexe xam nga nit ki xam dafa war a jox waa ñu dund leen jox ñu lekk wala leen jox ñu naan ñu ngi ne toog si mbaar yi da ngay fekk mbaar yi tefes fees del ay nit yoo xamante ne dañu waroon xëy dem géej joole woon mbaar yi daaw am nit mag ñi nga xam ne mel ni daan dem géej mais jeunesse bi ñooy toog si mbaar yi léegi donc moo ko waral ñàkk jën gi kon ñàkk jën googu li ñu wax ne moo moo moo ko def nañ ko te aussi migration clandestine yàgg na fi mais dafa am loo xamante ni état dafa yoroon teel taxaw jóg si en 2006 amoon na fi 2008 ñu defoon ay forum des si waxtaan si mais newoon nañu dañu ko arrêté mais li tax mënul arrêté c'est parce que li nga xam ne dafa si jóge woon dañ ko joxoon ñeneen ñoo xam ne joxuñu ñu doon joxe dañ ko joxoon les acteurs de la pêche directement bon ñooñu daañu toog bu ñu financé woon ñooñu ñu toog waaye dañu doon financé ñeneen bàyyi ñooñu ñooñu na gis seen bopp tey bu nguur gi defoon li war ci ñoom li ni mel du mës nekk seen option. mool moom bu dee dem géej gi am jën rek moom fii du fi jóge moom mool moom bu demee géej am jënam bu jege bu degee këram bu añee pare mu yor tefes comme mbaar mi comme ni ngeen fekk fii li mooy mool tefes day nekk. bu demoo amul benn lu mu jëm si wul jëm si wàllu këram. ñu ci soññ état di Sénégal. di yaakaar itamit que dinañ ci jël. ay ndogal yu wóor. ndax mbëkk mi mu ngi faat. ñu bari.